vraiment muy xale bu baax bu am yar vraiment bu am teggin man léegi yàlla dafa dem caare moom euh, man fi laa bokk caare gaar laa dëkk mais caare géej laa bokk dama koy xeex kuy déglu raay BFM xam na man yàlla ma doon koo xamante wax dëgg bu ñu nee loo xamante ne yàlla ñoom ñu am benn gars yi ba gars ba te yàgg naa xeex ba ma bay wax. ak léegi ay at la ci gannaaw li may wedd naan ma dangaa dox li ma wax naa ma li ngay wax nekkul waaye gis nañu lii raam ci jag bi la jëm yàlla ko yàlla li ci barke Seydina Mohamed vraiment ñu ngi gërëm àlla bu baax ndax àll yi su may ñëw fii moom moo tax bi ma daan jógee jaaree gaar yi ñëw moom laa fi xam ba xam ñoom Khadim Ndiaye ak ñi wax ci xam ñëpp te daal yàlla àll moo tax ba xam leen vraiment maa ngi ñaan école li ciy ñaan école de lutte bi yàlla na ko suñu borom porte li ci barke Seydina Mohamed jërëjëf Ah, di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag maa ngi fi fii yi ak ki nga xamante ni mooy Sa Thiès bu Thiaroye ah, tey bëgg waxtaan ak moom parce que defe naa ne ah, combat am taxaw na moo ngi nekk ci wàccaay li ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a waxtaan wi Sa Thiès nuyu naa la. ginnaaw ma sant yàlla jul sëriñ bi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ maam Cheikh Anta bu baax di nuyu waa Thiaré ñëpp di nuyu sama waa dëkk waa Bawol waa Ngangunay waa Réfane waa Réma waa Touba Tour waa Kombe waa Njëm Sin waa Gandal ñoo ñëpp maa leen bu baax a baax di leen siyaare nuyu sama waa dëkk yaayam waa Thiaré xaaxam bu baax a baax waa Faaleen waa Njóobeen ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu sama gannaaw Koulé Faye numéro 2 dafa mel ni suma ma juumul euh, yaa ngi ci 10 combats 8 victoires 2 défaites waaw maa ngi ci 10 combats 8 victoires 2 sa combat yow kan la. maa Bébé Garga la. Bébé Garga ba. Garga bu parcelle. bu Dóor Dóoraat Dóor Dóoraat waaw. kan moo taxawal boobu combat. Jibi Ndiaye. waaw Jibi Ndiaye moo ko taxawal. diggante ak bu ngewel. armée xam nga booy bi xam naa ko nii rek. ni duggoon na caaro de. waaw dégg naa ko. dégg ci nga tool. dégg si laa tool waaw dégg naa dugg na caare. lu la dëggal ci moom parce que defe naa ne bi mu fi dugg ci diggante moom ak Ahmed Deme numéro 2 la woon mu am ci ndam ah mu ñëw nga nga nga dëppaat da nga jëli revanche wala moom demee noonu. non jëliwuma revanche su ko laaj estafam dina xam ne maa dañoo war a bëri xañ ba ma koy laaj boobu booy la ay dirigeants am na ñoo xamante ni xamante ne bu baax maa ngi maa ngi ñoom. dirigeants mel ni kan. du ma jaay si turam waaye xamante ne bu baax ba ma ko dëkk boo booy la xañ ma ko fekk si làmb dañoo raam ba ñëw fekk fekk si làmb bi moom moom moo ñu may chance la moo taxoon nga teel koo dëkk jamono bi ngay nekk booy bëgg a moom lan nga gisoon ci moom bëggoon bëri non bi mu duggee caare maa xam ne ni mu fi génnee noonu war fee génnee noonu na combat bu dañ koo man fuuf ñu fakkas saloo ñu loolu moo mën a xëy moom moo ko duggaat si moom en tout cas loo ci mën a ba dégg dégg ko ci ba dégg ko ci daal mooy di nga xeex te di nga bëre loolu moom xam naa ko ci moom moom xam naa ne ës na lool lool lool lool waaw làmb noonu la làmb noonu baaxoo làmb noonu la wax soo soo jël combat da nga jël combat combat jàng da nga jël man ñi nekk ñi nekk sama ginnaaw ku si mel ni Coly Faye numéro 2 Brise de Mer ay Boylo ay ndaanan moo nekk biir caare rawati fa ma jógee muy bawal man fi ma fi ma jógee fépp ay ay ndaanan ay fi ne waaw en tout yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi ñu nekk nii non waaw maa ngi tey weekend bi sax moo tax waaye koor gi moo tax benn séance dong la ñu entraîné guddi guddi moom. bu ndogoo par lañ fi ne. Hmm. combat def mel ni nag jege si na waaw combat bi jege si na waaye pare na bu doon suba suba pare na. yàlla xam ne bu doon suba suba pare na. lan ngay wax Bébé Garga. Bébé Garga ne ko mu jël avance bi bu suur baa nag ñu taxaw bëre ñaari xale lan bu laajee xeex ñu xeex bu laajee bëre ñu bëre lam ñu moo ñoo jaay suñu bopp ñoo ñoo mën a génne suñu bopp loolu la am. ngay wax waa Thiaroye waa Thiaré comme comme dama tir rek ñun daan pare ñu pare ko rek am na seen doom pare na bu doon suba suba suba pare chaque jour ñu ngi si entraînement yi bu ne ko suba suba suba na. kontaan naa jërëjëf. ok merci waay. ak ki nga xamante ni mooy Boylo Boylo bu Thiaré mu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan bi Boylo nuyu naa la. waaw maa ngi delloo di ziar ñëpp di wax bisimilah bisimilah inna wala yàlla waaw ginnaaw ma sant yàlla julli sama waajur maa ngi sant waa Thiaré yëpp di sant waa Bawol ku ma dëkk xam nga waa réew ma Réfan Kër Samba xam nga di sant sama nga waa Fadiouth waa Joal waa Bassoul xam nga ak waa Fatick ak waa Kaolack yëpp maa ngi leen bu baax xam nga di sant waa Niodior ñëpp maa ngi leen di Iri Thiaré ndigal sama sama grand frère yi ñoom Koli Faye sama yëpp ay Abou Ndiassa Sa yëpp maa ngi sant bu baax di leen borom di sant daggaloo di ko bu baax di gërëm di sant sama waa koñ ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi sant yaa ngi sept combat ñaata victoire. maa ngi si victoire bi ma si nii. non bi nga bëgg ak léegi combat yi taxul yaa ngi sëgg di bëgg ak palmarès ni mel lan moo waral toogaay bi yàgg. ah lamb léegi gars yi ñi théâtre tëgg mbëri léegi gars yi ñi théâtre di gars yi tëgg ñu bëre théâtre kat gars yi bool ñuy bëre mbëri léegi bëreetuñu dina fekk kuy théâtre nu jox la combat yow mi bëri ci wala si fa la fayda nu bàyyi la foofu sept combat laa def six victoire benn match nul damaa yemee damaa nekk damaa nekk ci défaite waaw mais nag loolu mënu ma si dara man li ma war maa ngi entraîné di complété ci àll bi bu combat ñamee ma bëri bu ko waa ñëw tam ma dem bëri ci si mbapat ci àll bi loolu laa fi nee sans su ma déggee ni ngay waxee dafa mel ni nekkuloo mbër boo xam te day taamu naan kii laay bëreel ak du ma bëreel kii. bon dépassé naa loolu en tout cas daal ku ma la am boole su ma ñëwee su staff bu ne jaadu na dinaa ko naan ba gis ko wala ma dégg ko ne ma diw nañ la damay woo sama staff bu ñu déggantee bu ne d'accord ma jël combat bi am mënoo gis sanction sax bu bëri mooy loolu boobu depuis magal bi léegi nag damay doxal combat adversaire bu ma wax ba mu moo ci nekk mu jigi saay am ay yàqu-yàqu man na comprendre ma ba léegi mooy loolu mais ñan ñooy sa adversaire ci làmb. sama adversaire ay ñoom daam seen sama adversaire de ay Baye ay Baye xam nga ay ak ñoom bëri nañu waaw ay mbër yu mag yu bëri fii mën na maa may sama bëri ñoom ndax bëri nu dana fi ñëw di taamu ñoom duñu bëre ñun tam duñu bëre kon dañu may booyee chance bu bëre samay mot la bëri man samay grand ma jël bëri na booyu bëri fii ma ñoom doon na suñu combat digal mag bu laa taxaw nag combat la mag moom doon na suñu combat moom mu ne man booy laa quoi waaw dox na su ko desul téese rek desul avance jigéen mu delloo ko ak mbëri nañ mbëri mbëri mbër ñu dox sa avance ren li mu dox sa avance ëpp na six personnes bëri na am ñoo xam ne sax du ma leen seen tur ndax am ñoo xam ne bi la am ñoo xam ne sax man bëgguma leen woon bu ñu dawee tamit faaw nga yoole de non am ñoo xam ne bi leen lim sax bëgguma leen woon bi leen jox man man sax bëgguma leen bëri mais boobu dama bëgg bëri billaahi jox na sama sama ko waa jox na ko xam nga booy du ma aali ji xam ne nag booy mi la xama wax na ko mu bañ gars yi mu bëree force force bouse bi passé passé xam nga booy lan lu mu def Pikine. Euh, waaw Papa Laay kooku it wax na sama avance moom itam muy wax ay waxi xale xam nga dañu ne ay booy lan am na wax la préparé te jëlagul avance xam nga xam foo dëkk te ma koy wax sama man sa gëm gënalu man ka bëgg a ma ne ma ba billaay walaay ndax bu ëpp may combat gudd maa ne ci yoon wi ëpp ma mbooloo te am sama benn morom ëpp mbooloo si su ma jógee sama waa ko ñëpp ay jóg taw rek bawol gi bay jóg damay mobiliser kon man instant bi tollu ma xam ne instant damaa pare ngi defal ma li bëri non non ku bu ñu bëgg man d' accord bëri na ma pare bu bëri mais ku ci bëgg du bëri man du ma neexal kenn mais yaa ngi say entraînement maa sama entraînement matin soir maa ngi entraîné suba maa ngi entraîné ngoon damay entraîné comme ñu lu entraîné lu mel noonu ndax xam naa la may bañ avance bet ma tey bu ma woon tey na ma combat bu ñu waree bët set jël xam na man pare naa mën naa ma bëri loolu maa ngi compétir comme ni ñuy compétir dafa may bëri ñëpp di bëri ñoo xam ne doole gën a diis kon man dara jaaxaloo ma bu ko waa ñëwee ma bëri bu ñëw tamit toog xaar yàlla moom may compétir man. booy loolu kontaan naa waaw maa ngi maa ngi delloo ziar di ziar yëpp di leen bëgg bu baax li yéen def lu nice la waaw di biyee suñu entraîneur bi àlla nga xam ne li mu def nii waaw ñu kontaan nañ ci bu mu def ay ndogu nii uti mbër yëpp ñu ñëw nii ci nii ñoo bu baax di ñaan qualifier combat bi xam nga yàlla defal ko ndam lu gaaw te seen nga xam ne suñu grand la te ñu dem yéene nañu quoi day si ñun waaw bu bu woon loolu itam xam nga nit ki moom wax sa baax waaye wañ sa baax dara xam dafa baax rek moo tax ñu tam nu toll fi dox mbaax xam nga moom nuy jàppale si bépp côté di taxaw suñu entraînement nu koy taxaw kon na nga koy ñaanal yàlla ndam lu set guy xam nga combat bi nag suñu combat la ñun bëgg nañ ko trop du ko ñaan yàlla gagné comme ça ni dibité nii nunu tëjee noonu ci barke yonent bi maa ngi ñëpp di siyaar ñëpp